jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen béggewaat bu baax a baax di leen wax ni yéen seen émission bi bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci mbër yi su mu nee jàmmaarloo xel dem ci su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci amateur yi waaye su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci ñi nga xamante ni nii ñoo war a nekk ci digg yooyu ba jàmmaarloo waaye tey nag jàmmaarloo bi dafa xaw a spécial tuuti ndax dama invité ñaari xale yoo xamante nii dañoo bokk ci làmb ñaari xale yoo xamante ni dañuy neexal làmb ñaari xale yoo xamante ni buñ duggee ci làmb yàggul waaye marqué na seen empreinte niñ marqué seen empreinte mooy foo ne caatu rëbës xel yi dem ci waa rëbës su ma nee liis njaago xel yi dem ci jàmm gën waaye dafa nekk ñaari xale yoo xamante seen combat bi mu taxawee yàggul waaye dafa taxaw ñu ñëw def face à face mu am coow loo xamante lu bay judd na ci ndax dafa nekk combat boo xamante ne amateur dañ koo yàgg bëgg dañ koo yàgg bëgg yàgg koo laaj waaye taxawaloon ko yombul bi nga taxawee nag ku xam na ne làmb la joo xamante ni làmb bu mag am na waaye làmb bi ëpp ko coow ndax ay xale lañ ndax boo xoolee ki nga xamante ni mooy Liss Ndiago def na cinq combats su ma juumul quatre victoires benn défaite su ma demee ci Thiatou bés def na huit combats six victoires ak deux défaites xanaa di leen bàyyi ñi nga xamante ni ñoo leen fi teewal tey euh, ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu dalal leen ñu tàmmali waxtaan bi Elzo nuyu naa la. oui Ousin fay fay waa Mm-hmm. fay ñëpp ñu fi teew ak waa waay jaadu robos yi ñu ngi koy fay bu baax a baax. Mm-hmm. ana waa jaamu gën. waaw waa jaamu gën ñu ngi fa dama lan dama naan waaw bismillah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw di sant nag suñu Serigne Serigne Sidi Mbacke alxuraan bu baax a baax a baax waa di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom si waa jaamu gën ñëpp nag. Mm-hmm. maa ngi leen nuyu Bass. waaw onze bi la bisimilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. Mhm. Ousseyn mhm. ak gars bi nekk yëpp ñu ngi leen di bëgg di leen ziare dal jàmm. waaw Rebeuss procureur bi. Ah, bu jógee jóg de. mais dama gis euh, Elzo làmb ji dafa ñëw am coow balaa loolu sax damay laaj analyse Ndiago sax ba noppi. waaw liis mu ngi mu ngi nelaw jóge mu ngi tëdd di nelaw moom daal entraînement tëdd nelaw lañ ko sant. entraînement ma yaakaar ne day noyal comme que làmb ji tijjeegul. non noyal booy amuñu lu ñuy noyal de noyal instant yii nii liggéey fayee ko la ñuy wax de kon noyal di ko ah. gis. kon yéen ci combat bi fi mu toll nii. non avant sax ñu ngi si combat bi moom du amul combat sax day nekk si combat waxuma la mu am combat billaahi. lan moo waral combat bi taxuloon ko xawoon métti. waaw taxawaloon ko métti bi yëpp si côté waa caatu Rebeuss la xam naa danaan booy maa ko jiitu si làmb mais booy bi ñëw wane ay preuve daan ay jël top cinq duma ay nit daan leen xama loolu noonu mu xam ne sañta bañ la foog mu jël ko quoi xëy na looloo taxoon wiiri wiiri bi mais xama yàgg-yàgg mooy loolu ñoom ñaar moom xamoon nañ ne nañ daje. combat bi yéen la yéexee woon da ngeen bañoo jël Liss Ndiago parce que da ngeen ko raw wala. combat bi ko bu baax. Mm-hmm. combat bi xewul suñu mën naa ne si promoteur yi la quoi parce que promoteur yi ñi ko bëggoon bàyyi nañ. Mm-hmm. mais xam nga rek promoteur bi mooy si nekk ak ni ngay ñëwee tamit caa tamit du mbër boo xam ne da ngay ñëw rek xam nga di nga wax yi na loolu moo yéexaloon combat mais est ce que nekkul turu Liss moo taxoon ngeen bëgg yenn kase yi metti xaw a mettil combat bi. non Liss mooy loolu noonu caa doy na fekk mooy loolu <laughs> eh, mais Liss nag xale la boo xamante ne jar naa bàyyi xel ndax bu jógee waa jàmm gën yëpp jóg te saa buy bëre ñu xam ne ndaanaan mooy bëre tey kenn du laajte kan mooy bëre. bi nag na bu jógee Rebeuss Plateau Dakar xam nga ñëppay jug. encore moo taxoon combat nga xaw a yàgg ngeen jël ko combat bi am coow kër scientifique ba ku ne gis na mu demee est que dañ ne woon est-ce que sax dina àgg. xam nga scientifique bi ñun sax boo gisee ni demee xëy na moom ñun bi ñuy ñëw indiwuñu woon ful. Mm-hmm. mais moom bi muy ñëw xam naa daaw mafia bi xam nga ak mafia bi ñëpp jugandoo ñëw moo waral sax mu demee noonu mais bi ñu ñëw sax cinq personnes moo fa ñëw xaw ma daal man bi ma ñëwee laa gis ful bi xam nga mooy loolu noonu. bi nga ñëwee nga gis ful bi bi nga micro bu baax bi nga ñëwee nga gis ful bi sa xel ci lan la njëkk a dem est-ce que tey scientifique bi dina yeewu. waaw scientifique bi xam nga avant avant tout ça dañuy naan yàlla sax bi na si ndamu seen mënul naa demee leneen xam tey ñoom ni ñëwee noonu ñun bu ko ñëwee woon mun naa demee. ñoom naka lañ ñëwee. xam nga ñoom dañoo ñëw rek. xam naa def ko genre combat yooyu noonu jour boobu la ñu doon bëri. est-ce que nekkul ñu leen bëggoon naawal yu naawal leen yooyu <laughs> bu nekk ñun bis du ñu dépassé nante bu nekk jaana suñu ko ko jaar dañ koy defee rek comme yeneen combat yi rek. Hmm. mais est-ce que dina est-ce que dina yombee noonu. bii mooy gën a yomb sax. Liss Ndiago mooy gën a yomb. Elzo yaa koy dégg nee bii mooy gën a yomb. non koy dégg mu ngi wax rek xam xëy na Liss Ndiago moomin la lu ñu naan moomin bi booy boobu mooy moomin bi ko waa mm-hmm. billaay moom comme signature bi lu ñuy wax nii ñu bëri demuñu billaay waaw mais lan moo tax lan moo tax ngeen ñëw signature andi ay 4 4 3 4 mel ni ku yëm làmb ja Liss doo demee nii seen buntu kër mm. day fees dell xam nga ku yàlla war a def dara ëllëg sa ndaw lay feeñ Liss doo demee seen buntu kër yenn booy xëyeetuñu liggéeyatuñu barki alxuraan ñu ngi fees buntu ko yoon liis ko yoon liis ñoo leen di jox añ ñoo leen di jox lépp. mais loolu dina métti de. loolu dina métti de mais xëy na yàlla mooy def loolu yàlla du ne kii nii lay def foo tourné xale yi ñëw si yow suba ngoon guddeeg bëccëg mënoo ci dara. billaahi booy woowu ba tey bëreegul sax li si kanam billaahi rawali bët mais ay caatu rëbës yi xam nga xëy na làmb nu mu demee nii sax a tax muy liis di jël di ko jël. mais kuy teg sa xaalis combat Liss Ndiago Thiatou Rebeuss doo jël sa wéccet di ko teg si Thiatou Rebeuss. ah lu tax lool Thiatou Rebeuss mbër la te ndaanaan la de. mbër la la def. Mhm. am ci six victoires deux défaites. dugg na jàmm gën. Thiatou Fora jël ko faxas dem yoonam xam mais Thiatou Fora ak Liss est que benn lañ. Thiatou Fora ak Liss. loolu sarax la. waaw sarax la bii sarax la nag bii nii dina doon dëj sax lay doon nga naan sarax xam bii nii Liss su ko Liss Ndiago la booy bu yaru respecté doomu aadama barki alxuraan du wax si ginnit léeg-léeg Laurent rakk ji sax koy poussé nii muy wax xama affaire yooyu te booy wax ba tey waa jàmm gën jógaguñu de waa jàmm gën ñëpp jógaguñu ñëwal ko procureur bi dégg naa nee bu leen jàppee di leen di tëj non yaa procureur moom ñu war a tëj <laughs> koroog nga leen di dóor baadu correctionnel garaawul soo jiwul amul benn problème correctionnel mën nañ jékki-jékki rek woo la. libéré la mais yéen perpète la leen tëj. billaa wallaahi. mais combat bi dafa nekk combat am te combat bu neex la ndax bu nekkee ñaari xale yoo xamante ni tolloo nañ ci dayoo lépp maanaam ñoom ñaar ñoo ko tolloole mais keroog scientifique bi dañoo ñëw ñu gisee liis beneen beneen beneen xar kanam boo xamante ni maanaam mu yokk poids bi ba keroog caatu bés naan ko da nga naan ay doom doomu ñay bi nga naan est ce que loolu wax jooju xawul amul lu leen def. non liis xale bu ndaw la billaay wallaay liis ay magam sax ay magam laa la wax suñu mu toppul sax ay xale yu ndaw a ndaw lañ waxuma la ak moom xëy na xale la di liggéey lu mu war a liggéey. mais poids bi teelu nga yaakaar. poids bi non liis instant yii nii liggéey ko may doon noonu de poids nekkul lu mu jël lu mu rax si boppam walla néew ak naa nit doo bëggee dem sa niveau chaque jour da ngay gën a. élevé uh-huh. di évoluer si temps yii ba muy départ. kooñoor la woon ñëpp naan kii du mat mbër. lefe lefe la woon kay ba tey mbër instant yi mbër bu si nekk naan bëgguma jël poids kooku du mbër mbër da jël poids mën a liggéey di gën a diis ku la xool xam ne mbër mais nga doon mbër doo sumee man mii dul mbër sax dañu naan waaye man waay mbër. yaay mbër loolu doo mbër. ay caar rëbës noonu bind boobu la yor boo yooyu xëy na fu la leen dugal ak nekk si koñ situation yi xaw a metti sax. ñu ne xaaral ñu dugg si làmb ji pour takk la fa benn lijjanti suñu bopp looloo leen dugal si làmb. mais liis bi nu mbër la. looloo leen dugal ci làmb yi. cat mu ngi wul lay dëgg. booy yëpp dañuy gunge. ñoo dañuy gunge làmb nii rek. daa dëkk daa ñu bur dëkk. ki la moo tax ngeen xool liis njaagum neex leen ngeen ay doom ñee la jël te bu bés baa di ngeen ko wan. kon naan ba lokk. <laughs> Liss Ndiago non récupération bi la entraînement bi teel a tëdd bi déggoo nee na lii sa ngi tëdd di nelaw. tëdd yi nelaw kooku day xaar. billaay nii nii mu ngi nelaw. Liss nelaw yeew si mbedd bi sax ay nekk yii nii di ko si nekk. nelaw yeew entraînement nelaw yeew ay boy ndaw di amuñu moyen di luye ay oto barki alxuraan dañuy luye oto dem ba Lac Rose di liggéeyi suba ngoon lamb dafa métti de. te booy lu ñuy daj billaay wallaay kon si mu ko doon wax si benn interview ponkal li dañu ñëw ko koo xamante ni imaginer Lac Rose nu mu toll oto bu ndaw doo ko jëlee aller retour di nga ko fay lu mu bon bon dix mu jël loolu di rayante ji dem pour entraînement ñi bisuwaat sañ na ñëw di tuuti koo xamante ne day jël oto fay ko dem Lac Rose liggéey ñëw kooku noonu du tal sax yenn yi bay jël ay po ak ay yenn yoo xam ne mooy loolu mais est-ce que est-ce que bi liis tël su ñëwee est que du xaw a diis ci yéen. diis loolu jaaxul caat ñi mu daan moo gën a métti kii foog lii làmb la nii coow la nii nii rek. mais lan moo tax moo tax lan moo tax ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen néewal doole tuutal liis njaago. non du loolu sax parce que nga xam bi ñu yor përëgëlal bi ñu yor lañ xam nante bu nekk day yaa si kanam mu defee la tëj la nga toog xaar mais bu dee ay kaaw liis njaago yi nii nii nii ay albal moo gën a métti foofu ñaata kaaw la rëgg-rëgg bi mu ko jàppee baara tontu la kon moom bu ñëwee tamit. mais déet dafa ndànk bu jaawale alliance Balde ak liis seen combat yeeg alliance Balde xaw na kii mais dafa yomb. booy yii nii yëpp kenn mënu see yëngal alliance Balde. te rëgg liis ñaar mënu yëngal alliance Balde. kooku mën na rëppal mënu ko rëppal laa lay wax lu leer laa lay wax. mais mais est ko am ci tamit. suñu. waaw ñu doon tëdd nelaw sax du ñu yee. Baye Fall la de bu ñëwee rek ba at bi ba ñu suul tànk yi ne ngañ bopp bi ñeme jëm jëm yi kooku day xaar. non loolu suñu wax la. vraiment saako wax di jël ay suul tànk loolu xam nga. ah keroog de keroog de quatre la wax yow xam nga ne loolu caat du ko def. Riz Ndiago <laughs> mm-hmm. bu ñëwee day yaru ñu defaral ko xoolal mu ah, loolu loolu est dina yomb bu ko waa jàmm gën raayee. gaa yi topp ko est dina ñëw mën a yaru téye boppam. Mafia ñëpp génn Dakar Plateau bi génn Medina génn Fass ñëpp ñu dañuy xaar sax xam tamit nañu waxtaan ko waa xam nga jàmm gën saan làmb jàmm gën ko yor. waaw promoteur bu ñu tëgg barki alxuraan ñuy woo sax pour ñu lijjantil ko jàmm gën si mu tëgg leen. jàmm xam nga ñëw stade wàcc rek xam ne loolu làmb bu amul waa jàmm gën làmb jooju du neex billaahi booy dañoo moom làmb ku waa nañ leen ko nangul booy ay wax yi ñuy piraat di jël ay wax nii ay nii yëpp jàmm gën la fe la sookee ko jàmm gën ku si am booy yu ndaw dañuy ñëw créer lu garaaw teg ko mu jàll dem Liss Ndiago booy mafia tiril yi pare rek booy yooyu nga xamante ne xama ñoom Liss jaral na leen lu ne si àdduna waxuma laak ñeneen ñu yoole yoole yeeg waa guy ga waa tablo xaadim ak ñeneen ak ñeneen billaahi caatu ba xam ne day ñëw rek moom na mel ni kuy farawu taxaw liis jàpp ko daan ko xam mu yombal si supporteram teel a dem. xam nga mais combat bi daal échange yi nii daal ñu ngi naan xam nga. waaw Matar ba xam nga rek affaire yi gaaw jeex combat bi ñëw ñu leeral. booy waxaguñ ñu si waxu si wax xam nga noonu faaw nga wax nag parce que fii jàmmaar loola faaw nga wax fii jàmmaar loola. <laughs> woo woo woo waa Rebeuss te yeggaguñ foofu. ma yor baabaal bi ma yor. war euh. mooy loolu liis njaago ne liis njaago. liis njaago naa ñu ne dégg naa ñu ne njaago or la. njaago or njaago bon njaago bon la. laa la wax lu njaago du dem hip hop Sénégal ko yor. dip njaago bi ah. instant <laughs> yii nii 2002 kan moo <laughs> Silva njaago bi. waaw loolu de mu ngi toj ak Gomis. ñoo seere équipe nationale bi nañu waxante dëgg. kon làmb daal njaago da cee ah, baax njaago nit ku amul njaago sa biir sax njaago bonheur la te booy wow loolu xamul nag njaago bàyyi la ah, billaay wallaay saa yu daanee cant gi lay njëkk a wax day taxaw di def ay émission wala interview di gërëm Serigne Sidi Mbacke xam nga xëy na kooku dafa nekk jàmm gën newalu fi njaago bi newalu fi jullit bi newalu fi ñëpp ndaw yëpp la fi nekkal xool ku war a tegu si yoon mu teg la si yoon xam loolu la fi nekkal te booy boobu dafa nekk ci tànk yooyu day daan seen kër buntu kër gi mu def ay nga di cantam billaay saa yu daanee cant yi day koy def xam nga kooku noonu xëy na moom njaago la mu ngi dund seen religion nice mais xaritam yi ñu koy yóbbu si làmb mu ngi leen jox lu si war nice xam na ñoom seen ndam cant leen koy bégal quoi moo tax saa yu daanee defal leen cant kooku da nga ko war di ñaanal saa su nekk quoi billaahi bokkul ak booy yoo xam ne xëy na làmb nuñ fi nekkee liis mosoo ko dégg sax si ay yenn yi ay ñëw stade moom du amul combat sax talul ay ñëw yenn xama yoo xamante ne mooy loolu noonu lu ñu naan xale moomin la booy wow si kanam fii wëg trois ans ngeen xam ne ma leen wax Ousseyn billaah kooku nga xool xam ne naa leen mag la mag moom wala liis njaago xool jaatu rëbës di nga xamante ne xëy na doo xoolee seen ñaanee rek seen ñaanee rek su ma déggee ñu naan xale la sax ay ree la may def quoi yow xam ne yàgg ci këram naan ay xale booy nag nañ waxtaan ko waa Ousseyn mhm. xool caatu reverse rek nga xool xam na ne billaay wallaay Liss Ndiago xale bu ndaw ndaw ndaw ci kaw caatu ay xale yooyu sax garaaw léegi ni leen caat magee cent ans mhm. bu ñëwee xam xale uh-huh. bu ñëwee jox ko sib juróom rek amul benn problème. wala ñëw ñu nax leen daan. surtout bi loo xamee dañ koy fokkati. surtout boobu dañ koy fokkati de foo ko yor ni gis ngeen ni lay demee ci jaamaarloo ma ànd ak Adama ak ki nga xamante ni mooy kàggu mu bëgg ñu dem seetaani seen du ma ne jàkkaarloo mais seen présentation bi nga xamante ni bi combat bi taxawee la ndax présentation boobu nekkoon na loo xamante ne lu neex na amoon na ay coow nag waaye làmb ak coow ñoo ànd ndax euh, làmb moo baaxoo coow na leen dem seetaani loolu te dellusiwaat. Liss Liss ci loo ne. bien ginnaaw ma sant yàlla. mais yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm wér sant Yeesu Kirist ak mbaram sell bi. Uh-huh. di bëggee ñëpp di bëggee àdduna di bëggee képp ku bëggee lislaam. Uh-huh. di bëggee sama papa Baye Sidi Alxuraan. Mm-hmm. di nuyu ñëpp. Mm-hmm. di leen wax ne dal jàmm quoi. dal jàmm sa diggante ak uh, ki nga xam ne mooy caatu rëbës Abdoulaye Ndiané dox na ko six mois mënu koo taxawal lu dëgëre doon combat bi kase wala mooy la wala lan la. nekkul kese yow booy ay tàppet lañ. tàppet yee man sama combat bu may bëri rek jàppal ni man am naa si cinq adversaires huit comme lox yu siisu quoi ba ñu bëri man. ba jël sa avance. Gambien mi tàppet la wala boog euh, caatu Rebeuss tàppet la. kii mooy kii moo gën a yées tàppet. te lu mu doon. te lu ko bëgg a wax loo koy wax wax ko ki lay jox ndékki. waaw yow boo ko njëkkee yeew rek da ngay tëddaat. waaw loolu da am na. sinon xiif da lay rey. te yaa koy jox ndékki. voilà non ban ndékki nga koy jox. waaw yow jëmm maa moom sax. yow ak kan la. barki sëy gis naa moo xam ne maa ngi entraîné pour leneen lu nekk sama kanam quoi. Hmm. mais du maa ngi booy. kon côté bëre ak côté xeex yéen ñaar ku ko ci dàqale. ma wax la benn affaire man lu may wax làqatu ko. waxal yaa ngi dégg waxal. bien bëtu tan waaw amaan tamit jéggi na melentaan quoi. waaw bi du melentaan. gaynde waaw gaynde waaw xajul si muus. ok amaan tamit amul tànk. waaw mais toujours yàlla moo koy won yoonam. <laughs> waaw loolu am dégg waaw kii bu taxawee. Mhm. barki Seydina Muhammad ma duma ko dumay métti. daan mhm. bu taxawee nga duma ko. waxuma la moom sax ay. waaw bu ma wax ay kan quoi ñu koy ñu koy jiite sax laa lay wax. ñoom double moteur xanaa. alxuraan ko bu ñu taxaw sax. Ah, diisul. yow avant tam après dañuy comprendre quoi. bëre bii nii mu jugee si moom rek nañ xam man nan ñooy samay morom si làmb. Liss ña yaa ngi ci ñaata combat. yow maa ngi cinq combat. ñaata victoire quatre victoire benn défaite. waaw maa bëgg xamal booy nii dañ tey si man de. ñu tey ci yow. lu ne ci yow ba ñuy tey. xamuñu ma ko waa. lan lañ ma gis làmb xool caméra yi làmb tax ñu xam la. Liss mbooloo mi lay top lan la mbooloo mi boo jógee ñu jóg. ay yàq kii rek mbooloo mépp ay oto ñëw fii. non sama koñ boo fa duggee. waaw boo ñu fekkee ñun ñu toog rek ñun fees nañ si koñ quoi. ok yee suñu jotaay waxtaan rek toog nii ñun mafia la quoi ñooy ànd. Mm-hmm. yee waa jàmm gën yaa ngi dégg guy ga foran waay Caaroy Géej Sicap Mbao Njaago Bar fépp tableau mhm. ku lim day jum guy ko tël jaar fépp ay mbedd faas man mooy xam la mhm. mais loolu yàlla moo koy def si man quoi man tey lii nii maanaam la si man xam la mhm. parce que mënu ma ñëw man kese man bu ñëwee yaa ngi xam même bu ma leen làqu après ñoom dañuy ñëwaat booy ñëw bien kon man maanaam yàlla la a moo ko def si dara kii am na looy moytu ci moom Thiatou Rebeuss déggoolu ma kii ñu koy jiite sax waa barki alxuraan bu arbitre soufflé mu duma leen daan la wax ma laa kii barki leeru alxuraan loolu leer na ñu lay jiite sax bu arbitre soufflé mu duma leen daan la defe naa ñoom double moteur nag ak ñoom Sall Bawal ak mbër yooyu ñooy say njit ginnaaw bu ma la nuyee caatu rëbës waaw jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba ginnaaw bon sant yàlla julli si yonente bi sant sama ñaari waajur yi ñaanal sama yaay fa mu tëdd dàqal ko fi mu jóor ñaanal sama papa mu yàgg fi loolu fekk suñu njëriñ di sant sama sëriñ Baye Ass Mbacke bu Daaru Salaam wér di sant Baye Sidi Mbacke Alxuraan bu wér di sant sëñ Fallou Maraxib bu wér a wér a wér barke maam Serval dañ may jàppal di ma dooleel sans comprendre di nuyu mafia bi ma àndal di nuyu mafia procureur bépp di nuyu waa Rëbës képp kuy doomu Rëbës ak képp bawal bawal maa ngi bu baax a man doomu Rëbës laa ak bawal maa ngi nuyu yëpp di sàkku ñaan bu baax a baax combat bi ku leen day yomb day nax boppam déggoo li mu wax moom garab bu bëgg a sax ci digg penc ndax daana ko dina yomb garab bu naree doon waaw ci diggum penc waa ndax daana ko dina yomb ah ay pexe lay laaj de donc masa daane kii. waaw bu ñu jugoon léegi dugg arène barke maam Serafan cinq combat ma daan ko cinq jël yow yow xool nga kii. kii ay ñay la jël ba yii nii déggoo ma la wax bu ñu jugoon léegi lan mooy ay ñay yow itam. doomu téeméeri. Ah. kii li ko benke ñenkewu ko de. li ko benke ñenkewu ko. te bàyyi faal yi naan góor du yërëm góor. Ah. waaw góor. waaw du yërëm góor. jëflante rek daal. nan sama tànk yi dara ji sanguñu. yaa ngi moom xam ndax amateur yi rek combat bi lañ doon xaar ñu ko dox xam nga si six mois la wax at lañ ko dox combat gis ngeen dem nañ ba ñëw làmb daal nii la boo ko xoolee da ngay xam ne làmb dafa baaxoo coow ndax ñun dañoo namm làmb ndax làmb dong la ñuy dund euh, di lancer appel nag làmb bi mu tëjeek léegi yàgg na xale yi ci làmb la ñu yaakaar ñu ci bari bàyyi nañ seen lépp ndax làmb dañuy dañ dañuy ñaan rek ñu tujjul ñu ko xale yi delluwaat seen activité mesure barrière ni ñu ko jël ndax euh, ñoo ngi dox ñoo ngi dox suñuy soxla di takk suñuy mag si mais ñu ubbi stade bi ñi ànd ak mbëri takk mag supporter takk mag ñu dugg bëri ku paree dem ñibbi mais bu ñu ko tëjal bu ñu ko tëjalee gis ngeen euh, tout récemment li fi jot am mbër yi nga xamante ne dugg nañ ci gaal gi ñu jóge Mbuur sët mbër yoo xamante ne dee nañ ci gaal gi di leen ko jaale seeni mbokk di leen wax na ministre Matar Ba nañ xool nuñ gën a rafetale affaire rek tëjuwaat làmb ji ñu doxal bàyyi ñu ndax làmb dong la ñam mooy suñu sport national gis nga bi booy bi xaw na leen ruube foofu yëngal na affaire yi xoolee daal affaire bi neex na làmb ji daal ñëpp am envie mu tijji ñu doxal hmm. surtout Thiatou Rebeuss nag xaw na leen ne kii tuuti de. non loolu da see neex làmb caat booy man nekkul fara tax ma caat gaynde la quoi. Hmm. booy moom wax dëgg fa neex yàlla koo xool di gis ci moom sañ-sañ di nga gis ci moom fit te làmb góor dëgg balaa ngay daan dangay ngay daan koo xam dañu naan kii gaynde la kii am na fit xam nga nga daan ko man looloo ma gën a neex ci combat billaahi looloo ma gën a neex si koom bokkal ak boo yoo xam da ngay xàcc ñuy gëm wala na taxaw jàmmaarloog booy. ah wax na ko de nee na ko nee na ko nee na ko nuñ suul tànk yi deret ji sanguñu. bu mu yooru de bëri yooyu noonu ay yoori na taxaw ñu suul tànk yi raak. baat bi yéen gis ngeen fi liis combat yi mu jógee gis ngeen. te daw lu ñu naan xeexu njaago lu jeex njaago ko xeex ko gënal lu mu am. du liir sax. mais est-ce que mais est-ce que dina xeex ak caatu rëbës seen kër ñëppay bagaar seen kër laa la wax ñëppay bagaar ñëppay xeex ko njaago la dëkk. foofu boo yëpp ay bagaar boo yëpp ay xeex. lii du xeex. lii du du demee ba xeexut. billaay wallaay du bëreetee du bëree di yor bëri bëri ragal. du ñëwee du dugg si kër gi. moom xam na lu ma koy wax. kooku di bu baax a baax day mamal day yoru. bu ñëw day jëmm mais coow li làmb ji ni mu jotee ni mu amee coow nii est-ce que Liss dina ñëw yombal combat bi yooyu. bu ñëwee bu ko méttalee lay gën a métti si moom sax bu ñëwee nii bu ko combat bi métti boobu lay gën a métti procureur bi sa waaye ñun li ñu yor dañ koo xam ne xam nga ñoom ay or ak ay jamaa yi nii mooy loolu ñun Baye Fall bi ñu yor bu ñëwee képp kum jàkkaarloo yi ñaar seen bët jàkkaarloo nga jënd koo fekk biir instant seen diggu dañu naan dañu nekkee rëbës nii wag na booy dañ leen faa fekk moom ay gàllaajam booy jël ko agressé ko si làmb bi jooy na avant moo bëre barki alxuraan jooy na avant moo bëre booy yi tojal ko booy mënuñu làmb dañoo bëgg làmb te xamuñu lan mooy làmb làmb dafa am foo xamante ne lépp calmement dañ lay tooñ sax nga xam ne carrément nii mais booy boobu dafa moo gën a yomba nax si làmb ndax day ñëw ak sañ-sañ booy hmm. yomba nax si làmb day ñëw ak sañ-sañ wane ne gaynde laa am naa fi ak nii moom caaru kooraa moo ngi lay dégg de est-ce xam nga ne moo ngi lay dégg moom duma dàq ji ko jàpp ko daan ko. Ah, mu dox ñibbi. yow lu fay neex lu nekk caat moo ko def. waay la fay neex lu nekk caat moo ko def. si kaw. si kaw waa jàmm ngeen. lépp caat moo ko def waxuma la ak nga xamante ne du baaxoo mu neex du. signé wax mu neex du bëree mu neex. muy bëre bi muy tuus bi muy ah. lépp. bul fàtte kaay ma wax wax la nag kaay ma wax la nag kaay ma wax la nag Liss bu sampee woo tuus. Liss Ndiago bu sampee a tuus. ah daal xam naa ne moom ambiance moom dinañ ko doyal. ndax xam naa ne caatu bu tuusee taxaw. Mhm. ah Liss Ndiago tuus taxaw képp ku nekkoon amateur soxal dina sedd bés jaamagal la fekk baax mais loolu lan la loolu lan la Liss Ndiago dégg parce que dañoo gis en général waa mm-hmm. waa jàmmgën yi mm-hmm. muy Siteu dama koy commencé ca maga muy Siteu ndax boo xoolee euh, fi Siteu jaaroon mën nañ ne fa liis Ndiago tool fi mu toll nii mm-hmm. loolu lan la fecc bi no Liss booy dañoo dégg booy jàmm jàmmgën booy dañoo dégg booy jàmmgën am na tëggkat am na kat am na lépp te booy mais mujjanteel bi sax instant yi nii booy dundatuñu ay dund fecc wala ndax waaw sëñ bi da leen récupéré presque boo yëpp ay cant ay nii pour nga gis ay tànn biir ak ay yooyu noonu sax amatu fa. Mm-hmm. mais booy dégg daa nekk si ñoom booy dañuy toog créer wax mu dem créer fecc mu dem. xam nga rawatina liis liis ba muy booy ba tey géew bu mu dugg da koy toj xëy na lool noonu yàlla moo koy def ci nit nekkul loo xamante ne daa ñëw fekk ko xam nga ne njaago yu mën a fecc nii c'est très rare nga leen gis mais booy bi dégg ñeen di wax ñeneen daane la ñuy créé. waaw jéem leen ko rek. doo leen ñëwee di ngeen bi créé wax ñu ngeen ñëw bi ñeneen leen top 5. xam sama caméraman bi moom mooy signalé nee na temps bi jeex na ah. Elzo ma lay bàyyi nga tàggatoo woo ñi nga xam te ñoom nga waa woo ñu waaj làmb ji ndax xam naa ne combat bi taxaw na daal. waaw instant yi nii waaw ñu ngi tàggoo ak waa wasaare làmb di waa di lancer appel suñu ministre. man sama nijaay la Matar Ba. Mhm. xam nga rek. ay ah kon de mu dégg la. waaw booy yi <laughs> làmb dafa métti. booy lekk nañu avance bu yàgg. booy yi dund. te waaj combat dafa métti waaw di dundal seen i njaboot. xam nga championnat Angleterre Angleterre ñaata yoon ñaata kaa moo fa am. ñaata nit dafa. ma yokk ci championnat ah. Sénégal Adama kañ lay tijji le cinq wala le ñu wax waaw le wax championnat Angleterre instant yi amatul kolo. te tubaab yi lu leen corona bi rey ko nit ku ñuul Sénégal. xam nga nañu xam ne ku nekk sa wërsëg si loolu sport bi ñoom xam na ne sport lu muy dugal Sénégal tamit làmb lu muy dimbali ci doomu aadama xam dafa bëri nañu muñ xam ne feebar bi yàllaa ko fi teg yàllaa ko fiy jëlee tijji activités yi ku nekk nekk sa liggéey waa làmb imagine ñu lekk avance boo xamante ni un an et quelque. da ngay xool ci soq gàmmu gay daaw lañ woon bëri ba léegi. qualifié deux ak kële na le général Pass Siteu kii nii nu mu tudd Papa Sow ñoo ñëpp war a bëre lekk seen avant imagine que chaque jour ngay dund di génne di lii te ñu leen doon jàppale sarax yi gën a métti si te moo gën a tuuti sarax yi bilaay sarax yi sax ku si am jàppale sax xëy na mën na ko bañ a yëg mënoo si laal jàppale yi ñooy ñëw dimbali la mais boo yu ndaw yi kalaasu liis njaago yeeg yooyu noonu lool day métti si ñoom amaguñu jàppale yu leen war a jàppale te jàmm ngeen dama leen woo jàmm Diamaguène benn la ñëpp benn lañ man Diamaguène moo ma ñor man aw ma kenn xaar ma yàlla Diamaguène bëru Diamaguène yëpp aw ma see kenn xaar ma yàlla ku siy bëre damay dem ba sa kër damay dugg néeg bi ngay ngemboo sax damay dugg te kenn du ma téye xam nañ ne man jàmm Diamaguène laay dund cent pour cent deretu Diamaguène mooy daw sama yaram na ñëpp ñëw xam ne ja Liss Ndiago ndamam ndamu jàmm Diamaguène la. Mm-hmm. Mbaye Xadaa ndamu Diamaguène Coly Faye Siteu ñëpp gën moo leen ñor na ñëpp ñëw. nekkatul affaire de koñ njaaba newatul affaire de tandem su newatul na ñëpp ñëw lu yee koñ bu nekk bul xaar li nga bokk bul xaar ñu woola na ñëpp ñëwoon seen bopp xam ne dañ cee bokk booy bi amee ndam jàmm gën am ndam ñëpp ñëw wuyu si ko jàppale ko autorité jàmm gën yi ñu ngi koy jàppale mais nañ ko gën a jàppale suñu papa Abdou Aziz Guèye booy bi sa doom la jàppale ko dinañ fa ñëw ñu lay tàllal loxo fépp fu ñu mën a dem am si moom yaakaar dinañ fa dem pour booy bi am ndam réussir si làmb du ndam rek réussir nit doo amee ndam tey suba nga am defet te réussiroo loolu ndam li du dara da nga war a réussir ku opte dara bàyyi liggéey liggéeyoo dara ne làmb nga yaakaar man mbër yëpp laa muy caatu rëbës ak ñëpp ñooñu dañoo war a réussir quoi. Mhm. ndax du ñu réussirul rek seen àdduna. pour ñu dabuwaat mhm, day metti xam nga ñëpp mbër yëpp bépp mbër buy takk ngemb yaakaar làmb kese sérieux di dëggal di jubal di leeral. yàlla nga si réussir li nga si yóoru yàlla na la ko yàlla may. daa bëgg yóbbu sa temps de ñu bàyyi la nga tàggatoo. <laughs> nee nañ nga bàyyi ko mu wax. ñu ngi mm-hmm. woo si combat mu ñëw jàpp. Mame Gor Samb ñu ngi ko si woo mu ñëw jàpp si combat bu baax a baax ak Paul Loane ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si combat bi xam nga. di wax booy bi nag dafa bëggoon a tase mais day tànn. keroog bu gàtt. day bëggoon dafa bëggoon dafa bëggoon mais day càng kere bu gàtt buum rang problème lañ koy sëf buy ñëw ne indaale gàngam <laughs> ngeen noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen sant maa ngi bëggee ma fi ab ay xët maa ngi leen di bëggee xam nga bëggee xam nga maa ngi bëggee ñëpp aba ñu ñëpp maa ngi leen di bëggee ay Modou Kane course Ibra Faye maa ngi bëggee di bëggee koo xam ne nag dafa waaw dafa baax suñu mun naan quoi sama mag la sama yaay sama yëpp hmm. abéggéey maa ngi lay bu wér sama papa nag xam nga yàlla bàyyi ko fi. xam nga dafa fekk suñu njëriñ. amiin gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo lii rek lañ ci jublu ka foore ndax bu ngeen xoolee keroog ñi seen signature xawoon naa métti xawoon naa tàng ba ñi ñi yaakaar ne du àgg waaye gis ñu def ko ci fair play tey ma waat leen ki nga xamante ne moo fi teewal Liss Ndiago ah ki nga xamante ne rek la ci caatu rëbës ñoom ñaar ñoo bokk ma teewal leen fi ñu waxtaan lii dafa rafet ndax euh, làmb du du du du jaxase mais dafay boole ay nit dafay boole ay nit ba tax na nag ñoo ngi leen sant bu baax a baax dina ngeen sant sama cameraman yi Adama kàggu maa ngi leen sant bu baax a baax ak mbenn mënu naa ñu ñàkk di nuyu nag surtout maam Yacine Fall bi di wax ne ñoo ngi waaj dem waalo le 25 le 26 le 27 di wax ne ko waa waalo ne nañ leen xaar ndax bés bi nekk na bés boo xamante ni nii soxal nañu ndax fekk ñoo xamante ni xamantewuñu woon wala boog dañ daan déggante te duñ gisante nga fexe ba boole leen boole waa Dakar ak waa waalo loolu nekkul lu yomb di leen wax ne nag euh, ñoo ñaan yàlla yàlla yóbbuñu ci jàmm ak salaam di di ci gërëm nag Pape Omar ndax moom lépp moom la di la di la sant bu baax a baax di la sant bu baax di nuyu Kumba sama xarit bu bees bi ah ab sa jóg xam naa temps xolam neexu ci man ak jëkkëram sang maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.